bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alambiyaai walmursalin nabiyina muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim wajaal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida dellusiwaat nañ ci ndimbalal sunu boroom subhaanahu wa taala ak kàttanam di ko toroxlul moom sunu boroom di ñaan di ñaan mu jéggal nu sunu ay rëcc-rëcc waaye di ñaan mu nangul na sunu ay jéemantu lañuy def ci ay jaamu yàlla di ñaan mu jéggal na sunu way way dawlu yi sunu way dawlu ñi fas yéene tontu laaj yi fi mbokk yi rotal di sukkandikoo lu ci ëpp ci mazhabu imaam Malik na yàlla dooli ko ngërëm waaye nag di bàyyi xel nag mboolem waroom xam-xam yi ci des ñuy doylu ak a sukkandikoo seeni wax bu dee laaj bu njëkk bi mbokk mi laaj ne ku jàpp ba noppi wax ak jigéen ba am ca bànneex ndax loola day yàq njàpp ma déedéet loola du yàq njàpp ma lulul ne dangaa génne dara lulul ne sa sàkkara dara da caa génn lu ci ëpp lu mel ne mas yu masiyu bu fekkee da ngay wax ak jigéen wala xool ko xool ko oyof mën na am bànneex boo xam ne day génn ci day génn ci yow sëñ Tuubaa ne wal masiyu ma un xaarijun bi lazati euh, bi lazatin suxra wa bi tafakkuri kon saa yoo xam ne yaa ngi wax ak jigéen ba yëg soxol bànneex lu ci ëpp la mën a génn mooy masiyu mooy ndox la moo xam ne mu oyof la nekkul ndox mu far nekkul ndox mu nekkul ndox mu far <coughs> ñaare bànneex bu nit di am bànneex mooy ndox may njëkk a génn euh, mooy ndox may njëkk génn bu fekkee ndox moom a génn na nag waaw kay subaa kon loola moo yàq njàpp ma waaye bànneex ba nga yëg sa xol kese moom loola du yàq njàpp kon foofa du bokk ak laal jigéen ju la laal wala yu mel ndax jigéen boo ko laalee am ca bànneex ak donte génne woo dara bu ci yoonu Maalik dañ naan njàpp ma toj na ndax kooka laal gaa tax maa koo xam ne laaloo ko da ngaa wax ak moom dong wala nga xool ka kese yëg nga ca bànneex Euh, incha allah rawatina na nga xam ne sa soxna la nga xam ne moom loola doo ci am bàkkaar bu doon keneen la moom da nga ci am bàkkaar mhm. su ko defee kon loola du yàq njàpp ma wallahu alam ak loolu nag la rek mooy euh, bu la wóoree ne waajal julli daal ndax yàlla dana aqimi solaata ak aqimu solaata maanaam julli dañ koy dañ koy waajal boo demee bay waajal julli daal lépp loo xam ne mën naa fàbbi sam xel wala mën na laa yóbbu ci bànneexu àddina yu ko nuru boo ko mënee sor sori ba def julli gi ba noppi rek loola moo gën bu dee laaj bi tege mbokk mi laaj ne ñaar ñoo xam ne dañoo bokk fi benn barab bu ñuy jullee waaye bokkuñ julli gu ñuy julli ndax loolu mën naa nekk euh, mbokk mi laaj ma xamul lu mu jublu ci laaj bi waaye loola dara nekku ci maanaam maag euh, su ma demoon jàkka ja man fekk ñu julli tisbaar ba noppi man may julli tisbaar yow nga ñëw fekk yow julli woo woon euh, masal suba mën ngaa taxaw fee julli sa julli ma julli sama julli loolu dara nekku ci buñ dajoon ci benn barab it kazaalika maanaam mën nañoo bokk genn basan yow ngay julli julli gee may julli julli gii moom dara néew ci li ñuy bañ koy mooy nga dekk ca jàkka ja imaam ñu liqaamal imaam imaam di julli kooku yonent bi moo koy tere moo ne buñ xasee ba taxawalal imaam bu kenn jullee ti génn julli la ñuy bëgg sax bu dee julli farata goo mënta ñàkk julli kon nga jullee ko feneen <coughs> nga jullee ko feneen waaye bëgguñu imaam di julli ngay ber ak julli ak googu gu mën a doon doonte farata la sax loolu dañ koy dañ koy tere léeg nga gis ñenn ñu ko def ci ñàkk xam wallahu aalam mbokk mi laaj ne jigéen joo xam ne dafa fayoon dem ay kër mbokkam toog fa lu yàgg masalan at wala ñaari at lu ko ëpp ba mu yàgg sëy ba tas nee na mu gis mu toog lu mat weer dong ñu maye ko mu ne waaw kii lu tax ñu maye ko te idda ji jeexagul ñu ne ah moom kat comme gëj na ci kër borom kër maanaam gëj naa gisee borom këram kon loolu rek loolu moom moo tax waaw loolu njuumte lu rëy rëy la loolu am na ñoo xam ne noonu lañ jàppee waaye loolu njuumte lu rëy rëy la boo toogoon fukki at fukki at yoo xam ne gisoo sa borom kër bu la fasee da ngay iddawu ñii def loolu dañoo defe ne idda li ñu jublu rek mooy dañuy xool ndax ndaw si ëmb na foofu lañ ko kal dañ naan daal idda li muy jariñ mooy ndax ndaw si ëmb na te kii moom comme toog na at gisante borom këram xam nga ne ëmbut day det loolu njuumte la <clears throat> loolu loolu njuumte la idda mënees na cee xam loolu waaye idda du lool kese idda ak jaamu yàlla la maanaam suñ borom moo ne ndaw si saa yu ñu la fase yéen jigéen ñi ñu fase wala mu tollaqaatu yéen jigéen ñi nga xam dañ leen a fase na ngeen toog ñetti laab bu dee ci yeneen masaay bi ñu ne ñetti deret ñetti laab loolu ndigal la maanaam yàlla wu fa naan bu la wóoree ne ëmb nga déedéet déedéet tey ëmb dafa yàgg maanaam nit euh, góor mën naa sëy ak jigéen mu toog lu yàgg ëmb ba doog feeñ yooyu ci wàllu yeneen xam-xam waxaalaa kulin idda moom daa mënta ñàkk indi daam maanaam boo takkoon soxna soo xam ne xam nga ne moom maanaam passé na fu muy amee doom même boo ko fasee day iddaw kon ñi defee ne idda moom li ñuy xool daal mooy ndax ëmb na bu doon loolu koy kon léegi idda mën nañ ko fay jële ndax léegi docteur euh, mën nañ laa seet léegi li ñuy def test de grossesse bu ñu la fasee da ngay dem rek ñu la test boo ëmbul dem say dee demut noonu nag kon idda ak jaamu yàlla la gu yàlla digle dëgg la manees naa manees naa xamaale ci biir idda ji ndax am na doom ndax ëmb na wala nàngam kon kooka sëy boobee mu sëy sëy ba du wér ndax dañ koo takk ci idda te jigéen boo ko takkee ci idda na la wóor ne sëy boobee baaxut sayyidna Umar ibn al-Khattab defoon na ci ay ijtihaadaat yu am solo kon boo toogoon fukki at laa wax fukki at waaye nag am nga jëkkër jëkkër ji bu la fasee da ngay iddaw ko te kon meer boo xam ne wóor na leen moom amat mënatut a ëmb boo ko fasee meer ba day iddaw kon idda ajuwul ci loolu ndaw soosee sëy boobee dañ ko war a dindi mu dem àggale idda ja ba idda ja set insha allah bu noppee nag bu ñu doog a takkaat ñu koy doog ñu koy doog a takkaat waaye loola du mën a wér wallahu taala aalamu sawaab mbokk mi laaj imaam mm, bu ñuy julli ajuma imaam di ñaan moom ñaan la ko tuddee xutba maanaam xutba bi imaam di def bu ñu waaje julli ajuma ñaari xutba xutba mu yàgg mu toog jugaat moom ak ñaan la ko jàppe waaw kon xam naa ne dafa dafa xamul rek ñu bari nag loolu lañ ko jàppee ñu bari dañoo ñu bari dañoo defee ne imaam day ñaan imaam ñaanut imaam day waaraate maanaam day soññee <laughs> loolu muy wax xam naa nag comme nit ñi dégguñu arab imam bu koy wax ci arab ñoom duñ ci xam dara dañuy defe ne rek day ñaan amoon nañ imam ju baax ndeysaan euh, bàyyi xalifa loo ca njaareem ña ko xam xam nañ ko ku baax te sell yàlla na yàlla dolli ko njéggal ak yërmande bu baaxoon lool bu masaan di xutba ba agsi ci fa man yaamal mithqaala darratin xayran yara da ngay dégg ñenn ñi naan amin amin nga ne moom mi ngi leen di waax di leen wax ne yàlla nee na kuy def dara na ko seet ndax boo defee lu toll ne fepp suuf ci lu baaxut wala ci lu baax yàlla gis na ko te dan la ko fay xam nga loolu ñu wax la ko nga war a tiit naan amin la ko waral mooy nit ñi dañoo déggut kon loolu dana sulliwaat euh, temub ñuy wax ak nit ñi ca la ñu dégg saa borom ne wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani mi donte ci yoonu Malik nag moom ba xutba ajjuma ñoom dañuy bëgg rekk na nekk arab na nekk arab kon nag lu mel na li euh, jumaay Tuubaa di def wala yeneen jumaa yi nga xam ne dana am waxtaan wu ko ci olof wala ca làkk wa ñu dégg bu ñu noppee xutba ba ñu def ko ci arab loolu it aw yoon la naka noonu ñiy xutba ci wolof it loola aw yoon la doon na ci mazhab Malik moom duñ ko nangu ay yeneen mazahib ak yeneen borom xam-xam nangu nañ ko tey nag njariñ la yaatu na bu ngeen seetloo xutba yi ñuy partagé di ko eh, kii mooy yi ñuy wax ci wolof xutba yi ñuy partagé di ko yóbbu ku nekk di ko yónnee sa morom naa ne yónnee ma ko jox ma xutba naa nga mooy yi ñuy wax ci wolof nit ñi nag boo leen waxee luñ déggut mën naa am gàllankoor sa message mën naa am am jafe-jafe lu mel ne mbokk mii di laaj naan imaam day ñaan bu fekkoon ne tey ji mi ngi déglu xutba bi dana xam ne imaam ñaanul imaam moom lay waxal naa ko ragalal yàlla defal nangam wattandikul lii wattandikul lee kon loolu xutba la tudd ak waaraate ak waxtaan ci diine ngir yee nit ñi ngir soññi leen loolu la naka noonu imaam bu xutba ba jeexal toogit ba tey ñaanut loolu julusul istiraaxa rek la maa yonante bi dara diggante ñaari xutba yi bu xutbaa benn ba mu yàgg day toog tuuti rek daal di jógaat loolu imaam ñaanut ba léegi ñu bari tamit dañuy defe ne imaam foofa dafay dafay ñaan nga gis jàkk jépp maase ca ñëpp tàll seen loxo bu kii ñu daal di tifli loolu moom daanaka néewaan nga dem ci jenn jumaa di julli da gisoo ko nga xam ne kon nit ñi seenu ñàkk xam jéggi na dayoo daqantiwu nag ki nga xam ne moom daa bëgg ñaan nga xam ne moom mooy ñaan ñaanu boppam waaye ki gëm ne imaam toog bii mu toog daa toog ngir ñaan wala mu defe ne li doon jàng ak ñaan la gu jeexal ba muy too di nangu ñaan loola njuumte la te ñu bari nag loolu lañ jàpp wallahu bu dee laaj bi ci tege mbokk mi leerlu nee na ndax jullik ajjuma kii xutuba mën naa bañ a bokk ak kay jiite tontu li mooy déedéet bu fekkee du ngànt julli ajjuma daal kii xutba mooy imam bi imam bi la war a doon bu fekkee amul benn ngànt bu fekkee amul benn ngànt moom mooy xutba bu noppee jiite bu fekkee nag imam dafa xutba ba noppi war a jiite daal di am ngànt masalan xutba na ba ñu war a julli biiram di metti wala mënta taxaw wala muy miir wala nangam kooku moom dañuy tànn ci mbooloo mi borom xam-xam yi ñi mën a jiite te fekke woon xutba bi mhm, ñu tànn ca kenn mu jiite waaye am maa nag jumaa joo xam ne noonu la ñuy jullee nga xam ne kii day ñëw xutba kese lay def déedéet kooku moom mu ci yoonu Maalik dañ ñaan bokk na ci sart yi mooy kii xutba na jiite bu fekkee amul ngànt wallahu aalam bu dee laaj bi tege mbokk mi laaj ne ca bitim réew ñaa ñaari way dencat yoo xam ne dañoo tàqalikoo maanaam dañoo tas seenub sëy euh, mbokk bi nag ni mu ni mu ko laaje dafa mel ne laaj bi daa leerut wax naa ba sonn nag ne kuy laaj na ko leeral na ko leeral waaye li mu bëgg a wax daal mooy dañoo tas seenub sëy xëy na ngir am benn intérêt buñ cay buñ cay topp l'islam nag moom loolu du ca dugg ndax tas ab sëy ngir intérêt xaalis wala intérêt nangam loolu moom am poox lay nuru dafa mel ne loolu moom sëy moom da koo jàppee aw aw sagar ku xam sëy ni mu diise ak bu ñuy takk sëy li ci yàlla di dajale lépp jullit ña dajaloo mag ña dajaloo ñëpp dagg seeni yitte ñu taxaw dafa ne ful la ngay def nga dem ba bi ak sëy boobu nga di ko tekki ngir wàllu finance wala wàllu xaalis wala wàllu nangam kooka kuy foowe diineem la kooka kuy kuy kuy foowe diineem la waxalaa kullin ñoom ñaari way dencante heure bu ñu siñee ay kayit yoo xam ne kayit diffère différence la ak donte ñoom sax loola yéene ko loola moom di fase am na moom nit ki heure bu signé ci aw kayit kayit woo xam ne euh, dañ koy wax ne nii fii yaay wane ne man diw nangu naa ne tas naa sama sëy bi kee kay signé kiy signé kiy signé sëy ba moom tas na jigéen ñi sax waxuñu waaye góor gi heure bu signé rek xam na li muy signé lu mu doon sëy ba moom tas na sëy ba moom tas na amaa nag di ko tas ngir jublu ci intérêt àdduna loolu li muy tekk mooy oyofuk diine ak oyofuk ngëm yàlla loola rek lay tekki ndax adduna nag warulaa laa jaral nga jël sa diine sànni fale am na ñoo xam ne moom daanaka seen diine moom lu ñu am jaay ko lu ñu am rek jaay seen diine lu ñu am neex nit dong tax war na jaral ne la ñu bàyyi seen diine sànni fa le lool nag doonaan damaa bàyyi naa sama diine déedéet déedéet da nga koy jëf da nga jëf luy wane ne sa diine ji de yow amuloo la benn njariñ maanaam dàq la place bi ngay liggéeyee donc jaral na la génn sa diine ji ngir mën a mucc alal kese nañ ci àlla musal wa ala kullin kon heure bu heure bu ñu signé kayit yi di forcé te xam nañ lañ doon signé rek sëy ba moom tas na ah, bu leen neexee nag dëgg la comme ku tas man ngaa fayli wala ku tas man ngaa takkaat loola moom leneen la waaye heure bu ñu signé kayit yooyee te xam nañ ko góor ko dong bu ko signé incha allah sëy ba moom tas na wallahu aalamu mbokk mi laaj lu am solo mu ne lan mooy faratey njàpp faratay njàpp juróom yaar la juróom yaar la donte boo xoolee tasul sixaar moom da ko def juróom-ñett wuduuna furuduhu samaniya fi qawli haasha cheikh moo ne al imaamul awfi moom moo ko bindee noonu la tumaariya waaye la gën a wér mooy juróom-ñaar la ndax boo demee ci al jawhar nawis ak téere yi ca tege yépp juróom-ñaar rek la ñuy andi mooy li wér ndax al imaamul awfi daa dugal foofa xalil baaraami loxo maanaam booy raxas say yoxo ba ci conco yi maanaam nga uh, sa ñaar sa xarantey baaraami loxo yi bu ci nekk nga dugal ci sa loxo bomb foofa loolu nag dañ ne waajib la maanaam lu ñu war a def la waaye nag nekk bokkul ci Euh, farata yi kon faratay yi jàpp juróom-ñaar la nga jàpp ko bu baax a baax a baax ba ca njëkk mooy yéene yéene mooy ak jublu ci sa xol mooy bi nga toogee daal la nekk sa xol mooy fas yéene jàpp waaye nekkul looy tudd saw làmmiñ nekkul looy bu dee nag sa xel day jax-jaxe lu bari kooku moom may nañ ko ko bu dee sa xol day day jax-jaxe lu bari bu dee day jax-jaxe kooku jéggal nañ ko ko nga ne bu ko tuddut day sikk sàkk ndax yéene naa wala yéene kooku may lañ ko mu tudd ko may nañ ko mu tudd ko kon bi nga toogee daal nga xam ne yow sa xol li ci nekk du jàngu du raxasu waaye la ci nekk mooy jàpp loolu mooy yéene ja mooy farata bu njëkk ba ñaareel ba mooy raxas sa xar kanam wolof boo waxee xar kanam rek li ci jublu mooy fi sa bët yi nekk ak sa bakkan bu nekk kanam nag kanam li ci jublu mooy awra waaw raxas sa kanam loolu boo ko waxee rek nit ñi nag xamewuñ ñaar yooyu ndax wolof dafa dafa gànjaru lool raxas sa xar kanam xar kanam nag boo koy raxas ñu bari nag duñu raxas xar kanam waaye dañuy sëlmu sëlmu nag bokkut ak raxas xar kanam sëlmu bokkut ak raxas xar kanam ñaar yooyu nga di ko xaaj sëlmu moom mooy njóobee ne bu ñu yeewoo seen kanam yi bari ay laas ak ay nangam nangam ñu dem ngir raxas ko raxas xar kanam nag ci booy jàpp lex yi dañuy dugg sa jëbi jë nga ne la tàmbalee sa karaw ga sa karaw fi sa bopp bi tàmbalee saxe ba ci sa suufu sikkim bi lépp day dajee dugg nga bàyyi xel na sa xóot-xóoti bët yi bët yi naka noonu sa tuñ yi waa daa bokk da ci bokk sa suufu bakkan bi wax sukk bakkan yooyu yëpp ci lay bokk waaye ñu bari nag ba ñuy raxas xarkan dañuy sëlmu mooy dañuy def nii rek li nekk ci bët yeeg yooyu la ñuy raxas waaye lex ba li tàmbalee ca nobbee ba ca nobbee wala li tàmbalee ca faas faas mooy góor ñi karaw googu di sax jëm ca nob ba ba ca beneen faas ba lépp day duggaale mooy ñaareelu farata bi kon yéene ak raxas saxar kanam raxas say loxo wala say yoxo ba ci conco ya loolu nag booy raxas saxar kanam ba ci conco ya na nga bàyyi xel ne sa baaraam yi lépp da ciy duggaale am na ñoo xam ne njuumte bu rëy la ñuy def mooy lu ñuy def mooy dañoo def ne ba ñu raxas sa loxo ba ci conco yi dañ naan ah cat loxo yi raxasoon naa ko ba may tàmbali kon léegi damay tàmbali ci tikki jare ba ci conco yi njuumtee ngi noonu baaraam yi ak lépp loxo lii lemu noonu lépp tikk jare day duggaat ci raxas loxo ba ci conco yi raxas ba nga ko njëkkoon a raxas loola sunna la bii nag farata la bii moo gën a garaaw nga xam ne boo ko bàyyee yàq jàpp mi day daal di ñëw moo tax sax xalil baaraam loxo man cay bu fekkoon ne ci fii ngay tàmbale kon jëruñu naan xalil baaraam yi loxo ndax baaraam yi amu ci ndax da ngaa tàmbale ci tikki jare jëm ci conco yi kon nanga bàyyi xel sa loxo yi lépp day duggaale nga raxas ba ci conco yi boobu boo ko limee muy ñaata ñett yéene raxas sa xar kanam raxas say yoxo ba ci conco yi mu ñett ban moo ca tegee masaa sa bopp masaa nag benn yoon lañ koy def da ngay si nit di jàpp di masaa di masaa bopp bi wala noppi ay ay yoon kon lépp lu ñuy masaa da ngay tooyal say loxo amul ndox da koy tooyal ba mu tooy nga teg ko sa jëbi ñot di mu dem nga yàng sa loxo yi nga ne karaw gépp lay ëmb mu ba ca doq ga nga xëccaat mu ñëw noonu lañuy ñuy masaayee waaye masaa bopp bi dem bi rek mooy farata dem bi rek ban mooy tegu ci farata ya raxas say tànk raxas say tànk moom it xarante baaraam yi nga bàyyi ko xel bu baax ak tëssani ak lu mel ne njóobeen yi nga xam ne seen tànk yi duñ ko toppatoo day xar euh, xaw a sàggan euh, tabarkàlla nit dañu bëgg ngay toppatoo sa bopp ngay toppatoo sa bopp euh, la kon tànk yi am na nu muy xare wala mu am nu mu mel day naqaree boo boo raxasee da ngay raxas jàll def na tooy na waaye boo xoolee du tooy rawatina nag ndëgguli ca suuf mooy liy tege li nga xam ne boo sa tànk suuf mën na am sax du laal suuf ko wëttandikul du nga bàyyi ko xel <clears throat> bu loolu jeexee ak ban moo bokk ci farata yi mooy ak ragg ragg mooy bomb maanaam boo doon jàpp xëpp ndox mi nii ci kaw dem sa yoon du baax faaw da ngay da ngay bomb bomb mooy loxo yi di ko bomb ba ca tegu te moo ca mujj te moo di sësale ñu koy firee gaaw waaye du gaaw boo nee gaaw eh, ku xamul day defe ne faraxta gaaw mooy boo xasee ba tàmbali njàpp mi cër boo def bu noppee nga teg ca ba ca des noppee nga teg ca mooy sësale nga ne boo raxasoon sa xar kanam ba noppi taxaw na di waxtaan wala nga wuyu téléphone ba cër ba wow nga doog a raxas bee loola day yàqu ndax sësale woo waaw dañuy bëgg loo def teg la ca des loo def teg ca la ca des moo tax dañuy bañ jàpp di wax wala di waxtaan wala nangam lu lu mënta ñàkk kon ma limaat ko jaar ci jàll yéene raxas sa xar kanam raxas say yoxo ba ci conca ya masaa bopp raxas say tànk juróomi ngi noonu ak bomb ak sësale mi ngi noonu mooy juróom juróom yaar loolu mooy faratay faratay njàpp bu dee laaj bi fekkee mbokk mi euh, laaj ne ndax ñoo xam ne dañ leen dafa dégg bokk ay woroom xam-xam ci Palestine sax la wax yal na yàlla doole sàmm jullit ñu fa nekk te dëgëral leen ay jullit ñu fa nekk ñoo xam dañ leen tëj ca kaso ba ñu gëj a gisanteeg seen soxna mu ne mu dégg ci ay woroom xam-xam ñu wax ne ñooña day bu fekkee mënuñoo dem joteeg seen soxna te bëgg nañu njaboot te soxna yi mënuñu faa ñëw dagan na ñu jël man maniyu mu bokk ca góor ña dem defal ko jigéen ña waaye loolu waroom xam-xam yi nga xam ne dañuy leeral masala yi masala yi nga xam ne masala yi xew ci jamono la ndax masala yoo xam ne moom du nekk ci téere yi waaye jamono mooy dem ba indi ko nee ñu loolu dagan na nee ñu loolu loolu dagan na waaye nag la ca yóbbu nit de moom dana yàgg lool bala ñoo bala nit di àgg foofu bañ koy daganal dana yàgg ndax xam nga soxna si ci boppam mën naa ñëw ci kaso bi di seet si borom këram naa nekk <laughs> loolu mën naa nekk bu demee ci kaso yi de barab yoo xam ne dañ fay nekk xëy na nag mën naa am kooka bu fekkee ku dansé la wala lam def daa rëy mën naa àgg ci ñu tere ko yu baree bari waxalaa kullin daal ñàkk pexe dëgg dëgg mooy tax nit ka àgg foofa boroom xam ne bu demee ba àgg foofa nag tayit xam-xam maye ko ñu gis ne kii kat man ni yoom ma ndax man ni yoom bu génnee nekk ci ngelaw li bu yà bu yàggee day yàqu loolu xam-xam saxal bu yàggee mën naa yàqu doon nag wala njaare ngir ñu dee mën naa yàgg waaye nee ñu am na nu muy yàggee ci kii bi mën naa mën naa yàqu kon nag bu fekkee ne euh, docteur yi saxal nañu loola ne mën nañ koo jëlee ci kii téye ko tey duñ ko jaawale dem dugal ko ca kële ngir ngànt ngir mu am doom ay waroom xam-xam ne ñu euh, dagat na insha allah ànd ak nag yee ca war a ànd yépp ak yee ñu war a sàmmonteel euh, yu bare bare bari ci bu dee docteur bu jigéen nga xam ne mën naa xool jigéen nga ak yu ko nuru wallahu aalam mbokk mi laaj dafa yor ak jur muy laaj ba xam ndax sañ naa wut ab xaj na fa mu nekk daa bari ay njóobeen yoo xam dañuy jël alali jàmbur ndax sañ naa jël ab xaj dafa dégg ñoom dañuy lislaam day tere yarub xaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko tere te ba koy tere da caa génne xaj boo xam ne ngir sàmmu la xaj boo xam ne ngir sàmm la neen ab jullit du yor xaj di ko kii di ànd ak moom def ko àndandoo wala sax nga gis ñoo xam dañuy àgg ci lekk ak ñoom wala lu bari loola day wàññe tuyaaba ni ko yonent bi jàngaleem waaye ba mu ko waxee nag da caa génne xaj boo xam ne ngir sàmm waaye su su baax xaj ba bu mu jaxasoog yow bu mu jaxasoog sa kër bu mu jaxasoog say lekk wala say ndab moom daal na yem ca jur ga lu luñ koy jox fekk ko foofa jox ko foofa waaw ko mu dem ba mel ne ku dëkk ci kër gi fu ne mu dugg fa ca néegi ak yooya loolu moom dañ koy dañ koy bañ waaye bu dee xajub sàmm wala xajub rëbb wala yu mel noonu kooku may nañ ko laaj bi tege mbokk mi laaj ne koo xam ne dafa yor kayitu xaalis masalan mu yor cinq mille wala dix mille ab junni junni wala ya wala yaari junni wala yaari téeméer wala téeméer wala yu mel noona waaye nag mu xaw a yàqu dem ba xaw a xaw a tilim lool xaw a yàqu nga xam ne léegi koo ko jox ngir mu jël ko rek jafe-jafe lay doon mu ne ndax dagan na nit ñëw jën ko ci moom ci lu gën a néew maanaam nit ñëw ne ko sa cinq mille bii nga xam ne dafa ñaaw koo ko jox nangu ko jël man mën naa koo jël waaye nag quatre mille kon laa koy jëlee nga ne kon da nga koy jaay jox cinq mille mu jox la quatre mille loola lislaam da koy tere wecceeku xaalis eh, boo xam ne benn façon la CFA la muy CFA wala euro muy euro te ngeen ci ëpplante da ciy tere ëppalante da ciy tere eh, te ak ak yeexe ak yeexe ndax xaalis bi moom am na valeur xay na kay yow yaa tayel dem fañ koy wecc ko wala boog yaa bañ mu yàqu say loxo wala waaye xaalis bi am na valeur li tax mu am valeur mooy li tax waa ji ko jël waa moo xam ne ne moom lii 5000 la du 4000 bu ko wóoroon ne moom mii lii muy jënd nii kat boo ko jëndee tamit du ca am cinq mille kooku du ko jënd kon xëy na kii jaay moom moo tàyyeel wala bokk moo mënta àgg ca fañ ko wecc ko wala boog jëralu ko ko waaye moom wóor na ne boo demee ci xëy na banque yi wala station yooyu mën nañ ko jël donte am na banque yoo xam ne léegi tabarkàlla waxaalaa ko leen xaalis bi li feeg mi ngi yor valeur xaalis te yor na yor yor na valeur u xaalis moo tax waaja nangu koo jënd maanaam ab cinq mille la du mil ab 5000 la bu wóo waa ji jën li tax ma nangu koo jën dafa xam ne am na mil francs mu ci war a amaat kon xaalis la ba léegi li fekk nag looloo ngay am euh, tabarkalla looloo du dagat ñu koy wecc ko mas naa cee euh, bi ma dégloo laaj bii sax doon naa ci waxtaan ak ma ne sëñ Mbàkke Abdourahman ma ne ko laaj mel nii dañ koo dugal ci sama laaj yi wala ma cee tontu nag ma gën koo wérlu ci yow waaye lool moom it noonu la ko gisee nee na li feeg mi ngi am valeur xaalis kenn sañu koo weccax ndiku ci lu gën a néew te am valeur xaalis nag moo tax waa ji ñeme koo jënd ndax xam na ne bu ko jëndee mën na cee amaat cinq mille moom wóor na ko te loolu lislaam da koy tere boo demee ca risaala mu dugg ci wàllu jënd ak jaay buntu ba koy jàngale rek lam ca njëkk a jàngale mooy lu mel noona wallahu taala alamu sawaab wa ilayhi almarji wal maab bismillahi arrahmani irrahim bu dee laaj bi ci tege mbokk mi leerlu ne koo xam ne dafa ñëwoon di julli si suba waaye bi mu ñëwee laataa muy taxaw di kàbbar imam sëlmal nu muy def julli julli boppam rek la muy njëkk def mooy julli ñaari rakkay fajar te yéene waale ci tahiyatul masjid yi mu yóbbaale ñaari yépp bu sëlmalee doo ko liqaam doo ko doo ko julli suba julli gi waa jàkka ci julli loolu yëqalu yëqul dara ci ñaar rakkay fajaram ndax comme waa jàkka ci julli nañ ba noppi loolu mu du ko yàqal dara day julli ñaari rakkay fajar wallahu aalam bu dee laaj bi tege mbokk mi di laaj ne koo xam ne masalan ab ab ouvrier ab maçon wala menuisier muy liggéeyal waa ji ci bisu ajjuma waaye nag boo fekk na nodd guñ waaye jamono yi ñuy nodde nag fekk arrêté na waa ji di ko fay xaalis ba di ko ko jox mooy laaj ndax jox googee rek nag dañ koy boole ca yu xaram déedéet jox ko nag duñ ko boole ca yu xaram ndax bu dee contrat ba ak liggéey ba loolu la ñuy bañ maa jëmmi liggéey bi ak jëmmi ba ñuy fas contrat ba bu mu nekk ci waxtu yooyu amaana ku la liggéeyal ba noppi te booba fekk na heure waxtu wa ñuy tere jotagut wa ida nuudiya li solaati min yowmi aljumaa googu alquran bi wax fasaw ila dikrillahi wa darul bay wa sarul bay diggante boobu nag bu fekkee jox nit xaalis donc nga ne du ko yàqal dara li ñuy bañ mooy def fi loo xam ne mën naa yàqal nit ki ajumaam waaw dañuy bañ daal boo waxtu ba xasee ba jot daal moom loolu lépp am maanaam koo xam ne liggéeyal na ba noppi nga yëkkati di ko fay kooku dafa mel ne bor la rek dafa mel ne bor la te it nag loola bu mu leen tee dem julli ci wallahu taala aalam bu dee laaj bi jege mbokk mi laaj ne ku fase soxnaam masalan ñaari yoon gannaaw ba am ku ko takkaat koo ko faat wala koo ko fase ko bu soxna sa dellusiwaatee ci moom ndax dañuy effacer fase yam ko njëkk a fase tontu li mooy déedéet tontu li mooy mooy déedéet loolu mooy waxi jumhur waaw fase moom bala ñu ko effacer rek nga fase ko ñett keneen takk ko boo ko fasee ñett yoon am keneen ku ko takk bu dellusiwaatee ci yow léegi moom dafa mel ne yaa ngi ko takk kon amaan nga yeneen ñetti fase sa kanam am maa nag li fekk matut loolu boo ko fasee bu sëyiwaatee feneen ñëwaatit bu ñëwee la ko fase woon dañ koy wàññiwaale dañuy jàpp ne mas nga ko fase ñaari fase boo ko fasewaatee benn mu jeex wallahu aalam mbokk mi laaj ne dafa nekk ci oto timis jot eh, yàlla dogal mu julli ca oto ba timis ndax ne oto ba dafa bari woon coow bari ay mbir loolu moom geneen leeral la li am solo ci laaj bi daal mooy mi ngi nekk ci oto jàpp na ne bu ñaanee sëfoor bi da ko may timis jot na mu daal di julli timis waaw loola day dañuy xool bu fekkee ne oto bi fa mu tolloon xam nga ne oto bii bala moo àgg fa mu jëm timis dana weesu te loolu yaakaaruma ko ndax timis moom feek fajar weesuwut rawatina bu dee ni mu laaja nga ne autoroute à péage bi lay wax benn nga jëm dakaar wala nga jëm Touba amu ci benn boo xam ne bala nga àgg dana fekk timis weesu waaw kon nag bu fekkee ne eh, waxtu wi timis di jot man ngaa àgg ba dee Touba nga jëm man ngaa àgg Touba te daanaka ay gee doo ngay jot ki ay gee vingt et une heures diggante yooyu kon timis yooyu ca da nga koy da koy fay li tax nga mën a jullee timis ci oto bi mooy bu la wóoree ne oto bi doo ko wàcc mukk bala nga ko wàcc daal ginnaaw fajar moom te boobu loolu xaju fi kon del bàyyi xel loolu bala ngaa sañ julli ci oto del bàyyi xel ba xam est ce que oto bi man na fee àgg ba ma julli waxtu wii bu dee tontu leen ne waaw kon doo mën a julli ci oto ba da ngay bàyyi ba àgg ndax waxtu wa jeexagut maanaam bi ngay agsi Touba mën nga agsi Touba jàpp julli timis te timis du jeex te timis nee naa la li fekk fajar jotu ko timis mi ngi fi kon nag bu fekkoon ne weneen waxtu la nag lu mel ne <coughs> takkusaan ci misaal mu wóor ne oto bii bala moo àgg Touba moom timis dana jot te nangu laa may waaw kay su boobaa nag moom nga xam ne boo julliwut waxtu wi faat la su baa kon mën ngaa jullee ci oto ba jullee na nga mane fekk amee nga ak laab amaa nag oto bi dana àgg Tuubaa te waxtu timis yu jeexagut nga dem jullee ci oto ba julli kooku da nga koy da koy fay ah, kon loolu rek moo ko yàq wallahu a'lam bu dee laaj bi teg mbokk mi laaj kuy julli fàttee def salaatu ala nabi waaw lool du yàq dara ci ak julleem ndekam da koo fàtte donte am na ñu wax ne waajib la salaatu ala nabi waaye la gën a siiw mooy mustahab la rawatina ci yoonu Maalik mooy dañ koo sopp kon kooka julli ga baax na wallahu a'lam laaj bi fekkee nag laaju soxna si muy leerlu ku yor soxnaam dana ko jox dépense naam waaye nag du ko dimbali ci yenn soxla yi ki mu war a dem seeti fenn wala mu war a dem fenn soxla paase wala daal yi ñuy dimbalee jigéen rek nga xam ne nekkut lu war alquran nag day wax ne wa aachiruhunna bil maaruf maanaam bu ngeen nekkee seen soxna dee leen dund ak ñoom ci lu rafet am na loo xam ne waajib la mënta ñàkk boo ko defut am bàkkaar ay dépasse ak dëkkoog euh, yu ko nuru loolu moom farata la yëdut farata nag loola la wax ne alxuraan wax ne dee leen ci rafetal kon nag bu dee day dem fenn nga mën koo dimbalee dara wala mu war a jënd dara wala yi nga xam ne rek ay mbir la yoo xam ne euh, day mottali yooyu moom dañuy bëgg góor ga di ca dimbale jigéen ja bu fekkee nag góor ga dana ko rek man dépasse dong laa la ameel euh, moom laa siq ak yow li muy tekki mooy sëy ba am na leneen lu ca nekk lu ndaw si laajut xam nga nag léeg-léeg euh, problème buy am ci diggante ñaari way dencante jëkkër ak jabar ku ci nekk booy laaj dangay ngay man da ngay xool la arrangé nga laaj ko waaye xel nanguwut nit yor soxnaam amuñ benn problème mu mu jox ko dépasse kese kese nga ne booy dem passe cent francs du ko jox loolu ñëkkut am na leneen lu nekk ci ginnaaw léegi rek kiy laaj moom da dul indi loola lépp day xool rek moom tooñ yi ko tooñ ak liñ ko li ko menti mu laaj loola waaye kooku ab sëyam dafa am am na leneen luñ séq mook jëkkër ji am na luñ jote am na lu naqare jëkkër ji am na lu luñ jote am na luñ déggawut ba tax am na am na problème bu ci am moo xam ne jëkkër ji daa dem ba bëggatut wala daal am na problème problème boobee nag ñun duñ ci dugg dañuy bàyyi ñoom ñaar ñu lijjante ko ak seeni mbokk ab sëy day toll foo xam ne boo ca gisee loo xamut loola yónnee ab laaj naan nangam lu ci diina loola du ca doy la cay doy mooy waxtaan dem sa mbokk dem sa bàyyi dem sa nangam ko am suutura mu ñëw ca kër ga ah moom kat nangam ak nangam ak nangam ñu laaj jëkkër ji bàyyi ko mu wax moom it dana wax lan moo tax muy def nangam ak nangam waaye ku yor sa soxna Euh, tey yaa ngi koy bëgg yor te yéen a ngi séq jàmm doo xëy rek sànni ko ab dépense cent franc muy passé wala dara dara dara doo ko joxaat loolu moom mënta nekk kon kooku ab sëyam daa am jafe-jafe na woo mbokk yi ñu jéem ko jéem a waxtaan ba xam luy problème bi ñu jéem koo régler wallahu taala alamu sawaab bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala noo dellu si waat ngir fas yéene mottali laaj fi mbokk yi di jaarale ci yoonu imaam Malik ak waxi waroom xam-xam yi ñu doyaloo ak sukkandikoo seeni wax bu dee laaj bi tegu mbokk mi laaj ne bu ñuy def lu baax lu mel ne tabax daara wala lu mel ne tabax jàkka walla yu ko nur yoo xam ne dafa yitteel jullit ñi ndax manees na caa dugal alal yoo xam ne kako moom du ab jullit waa loola mën naa nekk loola mën naa nekk maanaam bu fekkee ne kookee nga xam ne ab chrétien la wala ku mën a doon xëy na dafa bokk ci biir dëkk bi lépp luy doxal dëkk bi mu bëgg caa dugal loxoom jullit ñi ci defar dara mu ñëw yëkkate alalam ne nañ ko koy dugalal kooku moom manas na ko caa def loolu ayut te du yàq dara ca jàkk ja wala ca daara ja wala lu mën a doon waaye nag bu ñu dem di ko ko laaj bu ñu dem di ko ko laaji maanaam ay jullit dañoo war a góor góorlu bu ñu amee lu ñuy defar ñu defaral ko seen bopp seen jàkkay bopp waaye nag bu ñu dem nag ja ñadul jullit di tàllal loxo nan dimbali leen ñu defar seen jàkk ji ndax loola day day day eh, da leen di maanaam loolu day wane ne kon julli ña dañoo doye di ñàkk nañ doole dañuy feeñal seenu néew kàttan ci ñu dul jullit te loolu baaxut kon daal bu ñuy defar moom kooku yëg boppam ñëw ne ah man kat defal leen ma ci lii subaa ma na ko caa defal yàlla nag dana ko ko fay fii ci àdduna mën na ko koo fayee wérgu yaram wala euh, fekk ku doon lijjanti dara yàlla def ko wala doomam feebar mu saafara ko wala yeneen neeb yéefar moom amul dara bis penc lu ko fa yàlla di lu ko fa yàlla di dencal fa lan yuqbala minhu la wax wa huwa fil axirati min alxaasirin yowmal xiyam day pekk ci way perte ña kon nag innama yaamuru masajid allahi ga alquran wax yàlla nee na su ma sañoon jàkka yi ñi koy dundal ak di ko taxaw dañuy doon man amana billahi wal yawmil axir mooy jullit ñi amaa bu yëkkatee ne nañ ko ci defal nangam kooku mën nañ ko ko caa defal insha allah wallahu aalam bu dee laaj bay tege mbokk mi laaj nisaabu xaalis fu mu toll waaw kooku da ngay dem ci bijoutier ndax fi mu toll jamono ju ne day wëlbati ko soppeeku am na ñoo xam ne dañ ne nisaab dañ ko war a xool ci or kon boo demee ci bijoutier ba nga ne ko quatre-vingt-cinq grammes or fu mu lu muy toll ci CFA dana la tuddal nee na nàngam dana la tuddal ne la nàngam am na nag ñu ne ci or 18 lañ koy xool am na ñu ne ci or 24 dafa mel ne waxi 24 yooyu jamono ji moo gën a dëgër boo demee ca euh, kër asaka yi ànd benn banqaas la ci euh, Touba ci kanam la yàlla fay leen mbokk yu baaxee jiite ko ñoom sëñ Souleymane Badiane ñoom sëñ Mbacke Abdourahman ñoom dafa mel na ci 24 kara bu ñu natt dafa mel ne moom la ñuy xool am na ñu gis ne ci xaalis lañ ko war a xool xaalis xaalis mooy xaalis bi ñuy takk ci loxo cinq cent quatre-vingt-quinze garaamu xaalis jamono ji fu mu toll xaalis bu sell mooy xaalis boo xam ne kenn laalu ko ko nga koy wax bu dee or it moom nga koy wax mooy bu ñu doog a jënd xanaa brut lañ koy wax su ko defee moom it danaa wax ne loolu ba jamono ji nangam lay toll nangam joojee jàpp mooy nisaab boo ko xoolee ci xaalis nag daanaka deux cent mille moom du mat waaye boo ko xoolee ci or rawatina vingt-quatre carats bi moom deux millions huit cent ca jamono jële moom la woon Euh, noonu nag liñ jàpp mooy xool ko ci xaalis moo gën ndax ñi mën a génn ñiy génne asaka ñi génn asaka gën a bari euh, wallahu aalam mbokk mi ci tege di laaj muxtaarum suba fu tàmbalee ak fu mu muxtaarum suba mi ngi tàmbalee ca dëgg-dëgg fajar ja la gën a jàpp ni rek ñu ne la mooy jamono yi ñuy salaatu rek jamono yi ñuy salaatu daal bi ñuy nodd nodd gu mujj foofa la muxtaarum suba tàmbalee bu doon ko nekk ci àll ba nag euh, nga xam ne ca moom lay gën a ràññi ko dañ naan ko bu demee ba guddi gi di dem fajar gi euh, fajar gi di dugg si nga xam ne mi ngi tàmbalee di leer maanaam jant bi mooy waaj a génn waaye nag génnagut waaj googu muy waaj a génn nag ay ay làmpam da koy tàmbalee muy leeral adduna bi ndànk-ndànk nga xam ne leer goo day xotti jëm côté bi mel ni kuy waaj a wër bi nga xam ne lii lëndëmatut tey tey leeragut ba leer nañ loolu la ñu tuddee alfajru sadiq boo ko def alfajru alkaasib gi nga xam ne moo koy jiitu tuuti waaye bu dee jamono ji moom la gën a jàppandi rek bu dee ci calendrier yi dañ la koy defal ne la heure nangam bu soppi ko ñu soppi bu dee ci euh, jàkka yi euh, dañ naa la bu ñu noddee salaat fan la yam fi yam mooy boo jullee suba ba noppi ba mu leer ba nga xam ne boo séenee kenn danga ko mën a xam boo séenee kenn da nga mën a xam ne kee day diw la wala ba dana la wóor ne kay xam nit la kuy dox koo xam ne bu la jegee nga mën a gis sa xar kanamam ba mën koo xam ne kon bu dee bu xawee leer tuuti leer goo xam ne Euh, koo gis da nga ko man a xàmmee foofa la muxtaar ma yem la tàmbalee foofa nag ba keroog jant bi fenk loolu mooy daruri mooy waxtu ñaareel bi bu dee mbokk mi ni mu laaje nag ne waxtu bi nga xam ne boo ci jullee julli nga ci waxtu wa loolu nag gën naa yaatu loola du muxtaar dong ndax muxtaar bi boo ci jullee julli nga ci waxtu yi boo jullee ci daruri julli nga ci waxtu yi bàyyil xel ñaar yooyu nag kon ni nga laaje am na ak jaxas muxtaar moom bu ñu ko waxee rek mooy li gën ci waxtu bi nga xam ne dañ ne la da nga ko cee war a jullee boo amul ngànt boo sàgganee ba jullee woo ko sax da am bàkkaar daroor yu nag ba tey ci waxtu yi la bokk ku jullee ci daroor yi muy xaaju ñaareel bi ba tey julli nga ca waxtu wa moom kenn dox na da ngay fay julli nga ca waxtu wa kon bu xar kanam yi leeree naññi muxtaar ma jeex na waaye texut waxtu ba léegi jeexagut waxtu suba daal balaa jeex nga xam ne kay julli moom danaan damay fay day fekk jant bi fenk jant bi bu tàmbalee fenk tuuti ba cat li tàmbalee génn wala muy waaj a génn tàmbalee indi leeraayam booba rek suba moom ñaari waxtu bi yépp jeex na léegi kuy julleeti da ngay fay kuy julleeti da fay bu dee timis muxtaara mi ngi tàmbalee bu jant bi sooyee bu jant bi sooyee rek timis jot na léeg-léeg nag jant bi mën naa sotta doo ko gis moo tax boroom xam-xam di ko gëstu ji di ko bind di am calendrier su ko defee jàkk yi di ci mën a sukkandiku boo dee kon ca àll ba nag wala ci côté géej ga léeg-léeg jant bi buy soo da koy gis muy dugg di dugg di dugg dem ba gisatoo dara lu bokk ak moom nga xam ne sona fu muxtaaram timis yam dañ daanaka dañ naan rek bu jant bi sooyee daal nga julli ba sëlmal daanaka rek waxtaan ma foofu la yam loolu suñ waxoon eh, ne kem boo amalee charte yi maanaam laataa timis di jot fekk waajal nga sa bopp ba noppi ñuy nodd nga jàpp ñu nodd ba noppi nga julli julli ko teey sëlmal eh, daanaka rek muxtaar ma fa la yem daanaka rek muxtaar ma fa la yem bu la neexee nag nga ne muxtaarum timis mi ngi tàmbalee bu jant bi sooyee mi ngi yem ci eh, bu safar safaat doom maanaam jant bi bu duggee am na ay lu mel ne ay niir yu xaw a mboq yu xaw a zone yoo xam ne moom lay àndal yooyu nag bu ñu demee ba dugg rek xamal ne muxtaarum timis moom it jeex na muxtaarum timis daroori ji nag yaatu na lool maanaam bi ba gee di jot ba vingt et di jot fekk na sax timis jeexagut timis moom daa gudd moggee ndax li fekk fajar jotagut seen waxtu jeexagut loolu nag mooy waxtu ñaareel wi mooy waxtu ñaareel wi dafa gudd kon li fekk euh, fajar jotut boo jullee julli nga timis boo jullee julli nga gee ca waxtu wa bu fajar xasee ba jot te julli woo timis julli woo gee nag léegi kooku mooy doo ko fay xam naa jàng wàllu waxtu julli ba xam ko lu baax la dëgg la nag booy julli kenn waxu la bu la neexee mën ngaa bañ a waxaale naan maa ngi maa ngi joox ak maa ngi fay waaw ah, mën nga fas yéene julli timis ak kàbbar bu la neexee jëru nga defe nekk naan naan ca waxtu waak ay damay fay loola du ca dara wallahu aalam mbokk mi teg ci li daaj ba xam ndax masaa ci ay kawas dagan na booy jàpp déedéet loolu dëgganut <coughs> al masu alal jawaarib loolu dëgganut masaa moom ci ay dàlli sang masxul jawaarib laa bëgg a wax masaa ci ay dàlli loolu moo rot ci sunna loolu moo rot ci sunna yeneen ya nga xam ne day <coughs> mel ne luy tegtalee masaa ci ay jawarab loolu ñu tudde ay kawas bokkut ak lii xew léegi ñu di ko tudde kawas daa am loo xam ne dañ ko daan liggéey comme ni ñuy liggéeyee dàlli sang nga xam ne day ànd ak der waaye ci ci biir nag am neneen nuñ ko liggéey def ci wëttéen wala leneen nga xam ne day tal ba mel ne daal di sang loola la ñuy wax amaa kawas yi nag euh, am na ñoo xam ne euh, ñoom dañoo gis ne dañ cee war a masaa ndax xëy na seeni mazahib wala seeni borom xam-xam waxalaa kullin euh, li gën a liñ gën a sukkandikoo rawatina mazhabu imam malik mooy ay kawas di yeesu ci masaa kon ay kawas dañ koy summi ndax amul summi ko amul benn coono amul benn coono summi ko salaat summi ay dàll solaat ko nag mën naa am coono ndax léeg-léeg nga nekk foo xam ne day sedd guy nga ne dàll yi dalay arrangé su ko defee dàll sang yooyee dañ cee massa waaye nga bàyyi xel nag nekku ne dañ cee massa ay sart waaw dàll yi sang dañ naa la dàll yi ci boppam nañ ko defaree der kon bu dee dàll yu ñu defaree toile wala kawsu wala lépp baaxut doo ci mën a massa nga bàyyi ci xel tey dàll yi tamit der ba na nekk der bu laab buñ ko defaree der waaye deru leneen lu laabut la ba tey du baax nañ ko ñaw buñ ko kolee ba tey du baax na na ëmb sa dojor yi tamit nga ne daal yi dana dem ba ëmb sa dojor yi bu fekkee ëmb ko ba tey doo ca mën a masaa da ngay sa daal yi raxas sa tànk ba nga koy solit da ngay jàpp ba àggal ba mu set nga sol ko ci ak laab su boobaa nag boo toj la waatee doog ci mën a masaa waaye du caag da nga koy sol rek jàpp rek masaa ca déedéet euh, demeewut demeewut demeewut noona euh, dàll weet na yem ci yow képp bañ a euh, bañ a nekk di ruggee ko ko ruggee ko waat nga xel yooyu yépp ay charte la yoo xam ne danga koy bàyyi xel doo ci mën a masaa wallahu taala aalam bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam wan sant la sant maanaam li xew léegi ñu njaay la sant ak kaa jóob la sant ñoom seeni sant sant nag mooy aw dàkkantal mooy luñ mën a ràññee nit ki sant mooy luñ mën a ràññee nit ki rek euh, nga xam ne danañ mën a xam ne kii kon ci askan wee la bokk wala ca famille bee la bokk yooyu nag ñoom ci seeni jamono sant yi moom xam nga amut sunu sant wolof yi ñoom lañ mën a wax ne mooy seen sant seen dàkkantal mooy dañ leen dàkkantale seen waajur walaf walla seen giir seen giir nekk mat Xurashi la maanaam giir goo xam ne xurayshin la tudd ñu ko cee dàkkantale wala ñu ñu ne muhammad ibnu abdullah muhammad doomi abdullah fooba loolu mu amoon ña ci des ñëppit nag loolu noon noonu la sant waaye nag bu dee sant yii moom daanaka bi mu xewee fi nun yëggut waaye ca seeni jamono ñoom ñi nga xam ne ñooy arab yi li nga xam ne mooy da nekk seeni sant ñu man leen cee ràññee mooy aw dàkkantal wu ñuy taf ca ñoom nga xam ne buñ ko waxee danañ xam ne diw la ñuy wax la waxuñu diw loolu nag la ci ëpp seen baay lay doon waaye mën naa bañ a nekk seen baay mën naa nekk seen doom nekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam abul qaasim te doomam la ñu ne buñ ne bàyyi qaasim ñu xam ne kon moom lañ ca moom lañ ca jublu wallahu aalamu bu dee laaj bi tege mbokk mi di laaj lu jëm ci wàllu faju ci ay xeetu reen waaw loolu dagan na bu fekkee ndax ay reen garab la rek médicament yi nga gis ñu koy jaay ci pharmacie yooyu yëpp ay garab la waaw dañ koy liggéey nag wal ko ba mel noona ñu yokk ca lañ ca yokk bam neex a jëfandikoo mhm. garab yii tamit mooy xobu màngoog euh, ngeer loola suñ borom ci boppam moo ci def saafara kon nag lépp loo xam ne ci xam-xamu doomu aadama gëstu nañ ba gis ne reenu nangam ak xobu nangam boo ko boolee wala boo ko moom dong dana faj nangam nit ñi di ko jëfandikoo gis ne mi ngi leen ciy faj ci kàttanul sunu borom loolu faju la loolu day ko ci xeetu sabab yi yooyu nag bokkut ak xeetu yi ñuy takk takk moom leneen la ndax li ngay takk moom nekku ne moom daa am dara lu muy faj wala nangam nit ki moo koy gëm rek jàpp ne bu takkee béjjunu nangam wala mu takk karawu nangam loolu moom dañ koy tere kooku day dugg ci bokkaale yàlla amaa bu dee lu jëm ci wàllu faj nag lépp loo xam ne xam-xam wane na ne lii kat yàlla da cee def nangam ak nangam te nangam boobee ko siburu bu ko naanee dana wàcce nangamam incha allah loola kon nit ñi dagan na ci ñoom ñu jëfandikoo ko bañ nañ ko ba olof sax moom garab lay wax rek moom benn yoon garab ba ci médicament yi nekk ci pharmacie alors garab dama la jëndal ma garab lay wax mooy luy faj allahu bi tege mbokk mi laaj bu ñuy gunge ab néew di sikkar ca kaw wala yu ko nuru boroom xam-xam yu bari loolu dañ koo taamuut dañ koo taamuut dañ ne lool daal euh, la nga xam ne moom la yonent bi jot a jàngale wala la nga xam ne moom la jot a def dafa mel ne buñ ñu daan denc ab néew noppi noppi wala bu ñuy zikkar ñu di ko def ndànk kenn ku nekk di zikkar la ngay sikkar wala ngay tudd yàlla wala ngay ñaanal néew bi njëggal <clears throat> ñu ne loolu moo gën a sàmmoon teeg dugg ci armeel yi ndax dugg ay armeel di coow di yëkkati sa kàddu dañ koo taamuut dañ koo sib euh, moo tax bu kenn ku nekk mënoon a wax la muy wax ci suuf loolu ayut ànd ak ñay sikkar nag lañ sa jublu rek mooy maase di tudd yàlla di ko kennal di wane ne fii dey moom kuñ daa wooyee mbërit wala ku daan kuñ daan bàkkul wala kuñ daa waxoon naan mooy waaja mooy nangam lu ñu tuumal ko nit ñi ku dugg ci armeel yooyee da nga xam ne waaja moom kenn rek la mooy sunu borom subhanahu wa taala waaye daal borom xam-xam yi dañ ne dikkar yooyu ñuy def baax na waaye bu ko kenn ku nekk mënoon a defal boppam loolu moo gën ngir sàmmoon teg teggin wallahu taala alam bu dee laaj bi tege mbokk mi laaj ndax rey muus dagan na déedéet muus dee su ko rey bu fekkee ne dangaa yor say xëti wala nangam mu di ko lekk yow yaay wut say say jumtuwaay ndax muus moom bu fekkee buy lekk sa xëti rek mooy yow yaa dencut xëti xëti ya na nga ko war a dence ndax ñoom yàlla moo leen binde noonu ñoom dañuy fàdd rab yoo xam ne yàlla moo leen binde buñ gisee luñ mën a fàdd dañuy fàdd ñoom noonu la ñuy dunde jubluñ ci ak tooñ ñoom déedéet jubluñ ci ak tooñ su ko defee ne yow mii doomu aadama yor ay bàyyima yow la ñu wax naa la yeewal man tëjal sa bàyyima yi njanaaw ya nga am ay xëti wutal kaaf gu dëgër goo xam ne muus mënu ca dara nga def leen ca yow yaa leen war a sàmm waaye boo leen sàgganee nag ba muus ñëw di ci dugg kon kooka yow yaay responsable ba waaye muus ma nag moom amul xel mooma te jublu wala tooñ wala mu jublu laa yàqal waaye noonu la ko yàlla binde mooy day fàdd di lekk kon loola doo ko ci sañ mukk wala nga di ko posene wallahu aalam bu dee laaj bi tege mbokk mi laaj euh, tuur ndoxi gone loolu tontuloo nañ ko wax nañ la sobe la bu dee mazhabu imam malik tuur ndoxi gone ak yu mag ñoo am bu dee yeneen mazahib bi nag dañ naan bu dee gone gone ga tàmbali wuta Euh, lekk li doomu aadama yi lekk xëy na nàmp rek lay kii ay tuur ndoxam du aay waaye wax jañ gën a sukkandikoo te mu gën ñoo doy nun te mooy waxi imam malik ak mazhabam mooy tuur ndoxi gone sobe la ndax yonent bi ba ko gone ko tuuree ndox da ko da ko laabal dafa wut ndox defar ko wallahu aalam laaj bi tege mbokk mi laaj ne kii mbokk la moo xam ne da daan mooy yàlla ci lu jëm ci wàllu njaalo yal yàlla jéggal ko te jéggal nu te jéggal mboolem jullit sunu mboolem rëcc rëcc yi yàlla xool ca mbaaxam nga xam ko yaatu ga xool ca matam ga xool ne mboolem li ñuy def ci bàkkaar du ko wàññi dara donte saytaane moo ni man suñ borom mboolu ñu jéggal rawatina mbokk mi muy wax mu ne nag yàlla dimbale ko mu ne ba bàyyi ko muy ñaan nu muy tuube li nga defagoon rek dèjà tuub la mooy di def dara ba mu yàgg nga xëy ko bàyyi ngir xam nga ne lii baaxut ngir xam nga ne yàlla yeyowut ñu di ko moy ngir xam gi nga xam ne bakkaar yi ngay def yépp day mettil sag faatu waaye bàkkaar yépp boo faatoo rëcc ko la ngay gën a bañ ci àdduna booy faatu mooy la nga defoon ci ay xeeti bàkkaar daa ci jële bànneex loolu mooy li lay gën a soof li lay gën a soof nga mel ne kuy lekk aw ñam ba yàgg mu gindiku la nga xam ne bu la xeeñatee nga wàccu nu ko raw la lay soofe waaye nga xalaat ne bàkkaar bii day bokk ci li may diisal bokk ci liy lëndëmal sama bàmmeel tax foofa ndax bàkkaar yi ay lëndëm lëndëm lay doon ay lëndëm lëndëm ak ay jiit ak ay jaan yàlla ci yàlla musal Euh, bu ko yàlla dimbalee mu bàyyi ko loola tawféex ju yaato yàlla ko ci yàlla saxal kon loola rek dèjà tuub la ndax tuub mooy rëccu ak bàyyi la nga nekkoon euh, waxalaa kullin lépp loo xam ne ab jaam def na ko lu mu rëy rëy rëy rëy rëy heure bu delloo ginnaaw bàyyi ko te rëccu ko ñaan yàlla jéggal ko ko suñ borom daat koy daat koy jéggal laa taqnatu min rahmatillah ndax inna allaha yaxfiru dunuba jamia bu leen naagu ci yërmande yàlla yàlla amul benn bàkkaar bu rëy ci moom boo xam bii du ma ko jéggale même bokkaal yàlla gi ngay dégg ñaan duñ ko jéggale mooy bu ko nit ki faatuwaale te tuubu ko waaye lu mu rëy rëy boo ko tuubee yàlla saa boroom danal ko danal ko jégal ni ko sëñ Tuubaa leerale woon radiyallahu anhu kon nag na muy tuube tuub ñett la rëccu la nga daan def te baaxut rëccu ba tege mooy bàyyi ko ba ca tege nag mooy nga yéene ba ba ngay faatu doo ca doo ca dellooti teewul nag heure booy julli wala ngay sujjóot ngay ñaan yàlla suñ borom bàkkaar yooyee ma doon def maa koy tuub di ko rëccu di ñaan yàlla nga saxal ma ci ak njub te ma bañ caa delluwaat mukk te yàlla nag ma ko jéggal saa yoo amee occasion toogit nag mën a def istixfaar ngay def say astaghfirullah te jublu ci yàlla jéggal a bàkkaar ak yu ak ak yu na demee waaye yàlla saxal la ca njub ka allahu alamu bu dee laaj bi tege mbokk mi euh, day laaj takk ak ndomba mm, maanaam def ci ay pettaaw euh, loolu lislaam da koy tere maanaam lépp lu ñuy yi xeet yi ñuy takk ngir di ci jublu muslu lenn rek lenn defe naa loola leer na kon benn benn rek la ci boroom xam-xam yi te am nañ ci ak wuute sax moom lañ ci maye muy alxuraan bind alxuraan sangoo ko kooku moom ñëpp nangu nañ ko bind alxuraan naan ko ngir ñaan mu saafaral tamay kese ñëpp nangu nañ ko fañ wuute nag mooy bind alxuraan takk ko loolu am na ñu ne dëgganut am na ñu ne dagana te xoolal alxuraan la kat te teewul am na ñu ne dëgganut xam na ñu ne dëgganut noonu liñ gën a jàpp mooy dagan na liñ gën a jàpp mooy dagan na ca waxi borom xam-xam yi boo xoolee seen i seen i ak seen lay waaye loolu dong lañ may mayuñu nga takk aw xor ndax xor bi amul njariñ maanaam loolu ñu naan boo ko takkee dañ la jariñ nangam loolu nekkul lu wér ci lislaam xottu karaw gi amul njariñ yooya waroo cee seenu njariñ wala nga cee dàq lor loola lañ koy tere di ko boole ci xeetu bokkaale yàlla yi di ko boole ci xeetu bokkaale bokkal yàlla yi lépp looy wut njariñ wala lor na fekk loole doon loo xam ne am na njariñ wala mu am lor yoo xam ne suñ borom moo ko jàngal doomu aadama wala boog moo ko yaxal ci téere bi waaye aw xottu wala karaw wala béjjën wala yu mel noona yooyu mu nekkul lu doomu aadama bi takk bu ko takkee rek ngay dugal boppam ci mbir yonente bi sallallahu alayhi wasallam képp koo dafa jël xeet wala béjjën wala yu mel noonu takk ko ngir ne moo koy musal suñu borom da cay génn bàyyi kook loola waaw suñu borom nag mu génn ci ay mbiram kooko xam nga ne ma ngay ma ngay sànk yàlla na ci yàlla musal kon tontu bi ci gàttal mooy lenn rek lañu may nga di ko takk ngir di ca séenu lor di ca dàq lor jublu ca dàq lor wala nga cay ñoddi njariñ mooy alxuraan te am nag wuute te it alxuraan ja nekk alxuraani kese ñu bañ caa rax dara dara lu ca bokkut alxuraani kese joo xam ko tàqartee ku ma a jàng alxuraan ngay xam ne lii moo alxuraan la wallahu taala alamu sawaab bu dee laaj bi tege mbokk mi laaj ku tukki bay ñibbisi jaar ci benn dëkk fekk ñu julli ajjuma ba noppi muy laaj ndax buy julli day wàññi euh, loolu moom du ci dara ndax moom euh, li ñuy xool daal mooy sañ naa wàññi wala sëñ ta wàññi rek bu fekkee ne dëkk boobee mu dëkk amu fa soxna amu fa soxna tayit bu ko dëkk ba mu dëkk moom daal dafa mi ngi mel ne ku jóge woon Dakar euh, di ñibbi ba mu wàccee Thiès mu gis ne waa Thiès julli na ajumara bi kooku moom loolu yoonam du ci nekk moom day julli tisbaar te wàññi rek moom sañ naa wàññi li fekk nag nekku ne Thiès ga dafa am soxna mu jaar ci kër ga nii bu fa amoon soxna te jaarul ci kër ga ni ki dafa jaar feneen dem ba ca euh, sorti ba yàlla dogal mu dégg ñuy ñu ñuy julli mu wàcc kooku su su noppee day day wàññi suy julli day wàññi wallahu aalam mbokk mi di laaj nee na dafa fàtte weer wi mu doon génne asaka maanaam génne woon na asaka daaw waaye ren nag mu fàtte dat bi waaw dat bi moom wax dëgg war na ko mën a fàttaliku ndax ndekam wóor na ko ne liggéey na ba at at ba at mi dellu si rek kooka asaka jot na kon boo ko fàttee xëy na fàtte gi mën naa bañ a mën naa bañ a yàgg ndegam xam na daaw na génne woon na asaka na fàttali ko bitig bi yan jamono la ko ubbi woon loolu bu xoolee ay facture am bagage yam jëndoon mën na ko caa xamee bu laajee ñim dendal place bi kañ laa fi ñëwati woon mën nañ ko ko wax su ko defee même bu fekkee xamul bis bi ca weer wa rek wala weer ya ko jege bu fekkoon dem na ba loolu lépp amul nag na na xool lu gën a rafet njort ci am xelam rek weer wum jàpp ne weer wii daal buñ ci àggee xam naa ne am na at mu jàpp weer wooye génne ci asaka te jàpp ko nag di ci génne asaka ñu bàyyi xel ne asaka boo ñu natt weer ci weeri wolof ci weeri wolof nga koy nga koy waññi waaye nga ñu bari dañ koy jàpp ci weeru tubaab ndax weeru tubaab dafa euh, day róobante lu bari day ëpp ak yées léeg-léeg mu nekk ñaar fukk ak juróom mu nekk ñaar fukk ak juróom-ñeent fanweer léeg-léeg fanweer benn euh, looloo tax ci weeru wolof te mooy weeru julli ñi lañ koy jàpp kon na jàpp weer wa mu gën a yaakaar ne weer wi daal bu ma ci àggee xam naa ne man génne asaka jot na ndax mat na at mu jàpp weeru waaye génn ci asaka wallahu aalam mbokk mi ci tege day laaj xeeti ndawal yi nga xam ne dañ koy jaay ndawal yi ñuy jaay benn muy ndawal yoo xam ne ay jullit ñoo koy defar su boobaa kooka boo fekkee ndawal rek jëndal bul jéem a lijjanti nuñ ko defaree wala yu ko nuru lu dul nag da nga caa am lu leer naññi nit ñi ay jullit lañ waaye seenu càggante àgg ca ak seenu caay-caay àgg na ca dañuy jël ndawal gu baaxut wala ak medd wala duñ ko rendi nu baax wala di ko rendee beneen xeetu rendi bu lislaam nanguwut amma bu ci loolu lépp amul nga fekk ay jullit rek di jaay ndawal te ñoom ñoo ko defar mën nga daal di jënd bu fekkee nag loola ay yéefar ñoo koy defar mooy ñu gëmut yàlla te it amoo benn preuve ca nañ koy defaree kooka ngir sàmm si dina bàyyil ndawal kooka ndax léegi ak lënt daan nay am yonent bi la mu waxoon mooy li la leer dee ko jàpp lépp lu xaw a am ak lënt bàyyil ngir sàmm sa diine na jamono jii nga xam ne jaaykati ndawal yi musiba gu ne la ñuy def mooy ma ci marché international yi ba ci ñiy bind xalaal ak lépp da ngay gis ne saa yu reportage amee ñu dem gëstu dëgg dëgg nañuy defee da ngay fekk nu ñaaw la ñuy raye yooya nga ne même sàmm bàyyi may sax dañuy dal seen kaw euh, léeg-léeg ab usine ñu ñu caméra fa caméra dañuy wan nañuy raye dëgg-dëgg dangay ngay gis ne ca dëgg-dëgg li ñuy def ñaaw na nga ne ñoom seen xaalis moo leen yitteel wér ko yaram nit ñi seen yoon nekku ca bu ne ba toll la jamono jooju nag te ñay ña yor loola duñ ay jullit duñ xamuñ sàmmonte wàllu jullit ndax bu doon chrétien yi dañuy chrétien ay chrétien ñoo ko rey te chrétien yooyu dañuy sàmmonteeg seenub rey ci seen diine ndax ñoom ni ñuy rey ak ñun ni ñuy rey benn la mooy bu ñuy dañoo jàpp ne lii bala ñu ko sañ lekk dañ koy rendi te rendi ga ñu rendi dañ koy dañuy rendi ca baat ba amaa bu ca loolu amul nag lu ndawal yi nekk ci marché ngay def boo def rek jënd ah na la wóor a yaa ngi dugal sa biir loo xam ne xamoo ko waxuma la ci wàllu diine waaye wàllu wér gu yaram sax tooxi doona bu ne ma ngi cay ma ngi cay nekk wallahu taala alamu sawaab mbokk mi laaj ndax dagan nañu boole tisbaar ak takkusaan julli ko rawatina ko yor ab liggéey ak buñ koy boolee naka lañ koy boolee awalan tisbaar ak takkusaan ka ko sañ boole mooy ku nekk ci tukki kooku lañ ko mayoon <coughs> ah xëy na bu fekkee tamit nit ki day liggéey liggéey boo xam ne mënu ca dara moom mënta maanaam tisbaar jot mu julli ko takkusaan jot mu julli ko loola mënta nekk am na boole goo xam ne may may nañ ko ko muy lan mooy bu tisbaar jotee mu bañ koo julli bàyyi ba takkusaan di waaj a jot mu gaaw dem jàpp julli tisbaar sëlmal bu sëlmalee tasanteeg takkusaan jot nag mu daal di julli takkusaan nga ne ñoom ñaar lay jullee ndoo waaye nag boo seetee daanaka julli ku ci nekk ci waxtoom la ko defee masalan bu fekkoon ne dañ ne takkusaan kañ lay jot ñu ne takkusaan seize heures quarante ci misaal seize heures maanaam quatre heures quarante yow kon bu une heure jotee une heure demi ñu daal di noddu tisbaar te xam nga ne benn yoon nga mën a jóg mën ngaa continuer sariya may na la nga continuer xam nga euh, quatre heures quarante la takkusaan di jot kon da ngay bàyyi ba quatre trent nga doog a dem jàpp julli booy julli ba sëlmal te seen teg quatre heures quarante jot nga xam ne boo sëlmalee da ngay jóg rek liqaam boole ci takkusaan boole leen loolu moom may nañu may may nañ ko ku tukkee ku ñëpp ñoo ci yem ku tukki nag lañ ko may moom moo gën a yomb ndax ku moom ba tisbaar jotee dong te wóor na ko ne lii may waaj a dugg su ma ci duggee takkusaan ci yoone la may fekk te dama koy faat kooka dañ koy may mu julli ñaar yëpp doonte takkusaan jotegut ba tisbaar jotee rek ñoom ñaar ñoo bokkee waxtu waaye ba tisbaar jotee rek day julli tisbaar sëlmal jóg julli takkusaan fekk takkusaan noddaguñ ko jotagul sax mu julli ko doo ko dugg ca loola la tax ñu may ko ko ndax dañoo xam nii la mën a def bu ko defut bu duggee ca loola bu waxtu jullee du julli julli jotee du mën a julli te balaa wàcc waxtu wa jàll moo tax ñu may ko ko tayit nag ci tisbaar ak takkusaan lañ ko koy may ak timis ak gee bu doon julli suba doo ko mën a julli te jotut julli tisbaar doo ko mën a julli te jotut waaye takkusaan ji nag ndekam tisbaar jot na may nañ ko mu julli tisbaar boo dee ko takkusaan bu doon gee tamit noonu la ndekam timis jot na may nañ ko mu julli timis sëlmal daal cee teg gee fa saasa te loolu nee na la kay tukki wala koo xam ne xam na ne waxtu wu ñaareelu buy ñëw da koy fekk mu xëm wala mu ñu di ko opéré wala yu mel noona ñooñu lañ ko may amaa ki nga xam ne day liggéey dañuy bëgg moom sa jullit bi nga fonk julli fonk gu toll ne bu julli jotee nga dagg la ngay def bu demee ba pexe amul nag solution benn solution lañ la may muy boobu waaye nag julli tisbaar te jotut duñ la ko may euh, naka noonu julli timis te jotut wala julli suba déedéet moom daal mën ngaa bàyyi tisbaar ji mu dem bay lang nga gaaw julli boo sëlmalee desante waxtu wu ñaareel dugg nga boole leen wallahu taala alamu sawaab wa ilayhi almarji wal maab haza wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain lii moo fi jotoon a dajaloo ci ay laaj lépp lu ci jub ci yàlla sunu boroom subhanahu wa taala mbaaxam ak xam-xam ak kàttanam la lépp lu ci dëng wala mëtut wala mu manqué wala mu ñàkk a leer wala mu nekk ci njuumte loolu doomu aadama la yàlla binde noonu yàlla na yàlla jéggal na ko te nangul ñu jëf ji te boole ñu tuyaaba ji allahuma salli ala muhammad wa ali muhammad